teema jóg way fi ngeen jëlin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna jaara jaara soxna jaara moo di tey ba mi desi di beñaat teeram waje foofu ndaw soxna jaara bu jiyeen kon mi neewi tey duñu beew waaye nga te waaye nga te borom nga te foog faaka kabla xadaf bacha fadla fa duru wala wa nafa jaay barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ñu nekk mooy kër Serigne Moustapha Imam Serigne Moustapha Imam mu Serigne Abdou Khafour macha allah nga xamante ne ñu ngi bokk fa Mbacke xewe ki nga xamante ne moom lañu gis sunu ginnaaw mooy Serigne Cheikh Mbacke Imam mi nga xamante ne leer la ci moom doxul lenn lu dul di ko liggéeyal Europe. asi fu nekk lay dugg di liggéeyal Serigne Moustapha Imam mi nga xamante ne mooy waajuram foofu la ñuy jaar di jaarale ki nga xamante ne mooy soxna Mbéri Sey maam Marème ñu gën ko xam ci maam Khayraat muy leer ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñoom leen leen dégtal noonu fii nag ci Porokhane waaye nag fii la xewee ci Dakar instant jërëjëfe borom tuuba tey di bisu Porokhane nga ànd ak mbokku taalibe yi war a kilifa gu mag gi te nga ànd ak njaboot gi ban yëg-yëg nga am. yàlla bu baax. di santaat Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha di ko ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ñoo ngi fii Porokhane tey ci dëkk Soxna Jaara bu sell bi nga xam ne tey mbooloo mu bari ñoo fi dajaloo ñu nekk fii ci kër Serigne Moustapha Imam mu nekk barab boo xam ne ñi fi ñëw ñëpp ziar moo leen fi indi ndax soxna si ci jaamu yàlla la nekkoon ba des fii ci dëkk bi tey nag moo leen murit yëpp di àndandoo di ñëw di fi ziar ñu am kontante bu baax nag ndax li nga xamante ni moom la sëñ bi digle ci ziar yàlla dimbale nañu ba def nañ ko ci kër yi mooy jàng nañ ay kaamilu alxuraan yu bëri jàng xasida zikar bernde gan ñi fi mu ne nii ñu ngi jël addee ji di ko yóbbul sëñ bi di ko ko jox waaw ñu am yaakaar daal bu baax ne nangu soxna si nangul nañu suñu màggal waaw. ñu gis nga taxawa koo xamante ni ñëpp ko xam maam noonu sëriñ bi di yóbbu am solo muy addiya addiya nan la ko sëriñ Touba jàngalee maam Thierno Diop. waaw jërëjëf xanaa addiya yi moom feddali rek la ndaxte euh, ko am sa sa sa wasila sëriñ Touba dafa wax ne Touba li abdin muridin saadixin lahumo dane bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati kon murid bi dafa war di liggéeyal ab sëriñam dafa war di joxe hadd li mu liggéey muy hadiya ji ba noppi ànd ak cofeel gu sax dakk ndax ba sëriñ Touba di wax. melo dan sadiq dañuy ko fi abad cheikh abad waye ban baye sa tan serigne bi ñeenti melo murid sadiq ko nag balang ko am aw da ngay jël li nga am muy sa njabot muy sa dole ak acci alquran yalla da lolo waxon sahaba yi anfusahum wa amwalahum joxe len bakkan joxe seen alal kon murid sadiq boo koy takk mooy koo xam dafa jox lepp boromam waye na mu jaare ko ci wasilam diko joxe mo ra seigne Cheikh muy magaluk Touba muy tiari mboor muy fu meuna don muy ba ci Poroxaan dajale li mu am ànd mbokk taalibe ñoo jébbal ko sëriñ Moustapha Mbacke imam mii nga xam ne moo di buntam sëriñ Touba loolu lool ci lañ nekk nii di ñaan yàlla mu yokk at mu ne mu faw ko at ma ci topp di di ci yéene mbokk taalibe yëpp nag parce que suñ jërëjëf maam Thierno barakaatu ñu ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul di sant yàlla ci soxna tu seet tedd si nga xam ni mooy soxna Mariama Boussa di ñaan suñ borom yàlla na yokk leeram ci darajey cheikhul xaddim ndax jëmm ju sell la waaye addee ji dañ ko sasoo ci sunu girug dund di ko fas yéene def ngi sàkku ci ngërëmal Serigne tubaa ak ngërëmal Soxna Jaara Bousso ndax seen cheikh imam mii mooy leeru Serigne Moustapha Mbacke imam te Serigne Moustapha Mbacke imam kat kenn ku ne xam na ni daaraam jii mu nekk diggante ak barab bi dara doxu fi te moo fi jëkk nekk imam fanweeri at ak ñett Serigne Bassirou yar ko defal ko loolu kon nag sant gi ñuy sant ci moom mooy yëkkati addiya fas sunu ndigg doon ay jaamam ñëw ci moom rek di ko sant di sant yàlla di sant sëñ Tuubaa waaye di ko sant si ngir jëmmi yàlla waaye dara génnul islaam dara génnul sharia dara génnul aqiqa kon nag ñuy ñaan mun Muntaxa yàlla na fi yàggati wér fas yéene rek dugg léegi ci biir jotaay bi ànd ak sunu jëwriñ sunu sëriñ sëñ Cheikh Mbacke imaam nu dugg ci biir fekk fi sëriñ bi bégloo ko jëbal ko sunu jëf mu defal nu kawe njort bu déwénee ñu am lu kawe suñu njokk ci darajey sëriñ ma leen ko waxee woon ci kaddu ngeen doon ma naan soxna Mbéri di taaw ci Cheikh Ahmadou Kara mbake nooré nii ci soxna yi Mbacké yaaram ñu ngi lay bi ah delloo siyaar sëñ Ousmane weetu ma ci wax sa ñoom yaay ngi fi wax dëgg yàlla doole sant maam jaara rek wax dëgg li ñuy def yëpp kenn ku ne sa nga koy defal waaw kon poroxaan mom chon noflaay amu fi waaw ah, ndem ki ñu tax a jóg ñun ñëpp wax dëgg yàlla ay coono daanaka moom moo ko jëlee sax àdduna ndax ba muy jóge fa mu jóge di ñëw fii ci la jëlee tawat ci zaayir ba jóge fi ndax yoon wu sori kon yaakaar naa ñu nit coono guñ fi daj rek jaadu na wax dëgg yàlla waaw ñu yàlla tas ci barke. Serigne Cheikh ñu waxtaan ak moom mu ne ñu moom mooy moom jàmbaar gi muy gis rek moom da koy tapp ci yow ndax ni ñuy sonnee ci liggéey bi. waaw waaw moom de sëñ bi daa baax rek waaye xam nga sëñ Touba moom ku ne xam na ni euh, euh, kuñ ku mu dimbali rek am waa jàmbaar moom amul kuñ dimbalee am te dañuy xencu di saytu wax dëgg yàlla te it am loo xam ne buñ ko nampee ci suñu waajur suñu ay waajur wax dëgg yàlla fuñ demit li ñu nàmp rek la ñu mën a doxale noonu la ñu mën a defee itam loolu ci lañu yar waa ku ñu xam xam ñu ci suñu ëttu baay ci Pastef la ñu yar jaamu yàlla ak liggéey fun mën damit loolu dong lañ faya na ndax nit du du du tari lum jàngut ku ne li nga jàng rek ngay tari ki ñu taxawal mooy Serigne Mouhamadan waaye yàlla dogal mu jiite daayira boobu di xidmatul xaddim ñoom niñ tudd dafa am solo muy xidmatul xadim ndax dégg nañ ci baytu Serigne Touba boobu muy tuubaalee Abdul Mouridine ñu dégg ci xidma ba ci addee ji. di bég loolu ndax mbir mi moom lépp mbégte la foog nga foog naa ne boo duggee ni nga dugg see ak ak ni mu demee rek di nga xam ne lépp taw fexe la waaw ñoom de lii rek nañu àndee mooy liggéeyal Serigne Touba muy aw ndaw ay ndaw ñoo loo xam ne dara ñor liggéeyal Serigne Touba mooy maanaam defar ay xewal defal seen seeni seen juróom-juróom ak seeni i fukk-fukk ak lépp loo xam ne luñ am ak luñ mën ak luñ mënul di ko ànd man ngir liggéey Serigne Touba waaw mooy ni mu demee nii rek ni nga ko gisee nii rek man damaa bég nag ko mënu maa wax dëgg yàlla waaw yéen wax dëgg. ñu gis kër sëñ Moustapha Imam lu fi yëngu lu métti métti dinañ ci tudd Dan Family nga ànd ko gaay yi. waaw Dan Family dafa nekk benn mbir moo xam ne mën naa ne. waaw xam nga boo toogee sa togg ba mu àgg mu neex faaw nga def si xorom waaw mën naa ne day xorom si waaye xorom soosu nag sëriñ Moustapha Mbacke imam maanaam moo ñu ko maanaam moo ko baaxee ñun moom ay ndaw nañ di ay doomam yoo xam ne mënuñ dara amuñ dara waaye moom moo moom maanaam moo ñu defal mbir moo xam ne nee na ma daal Serigne daan lépp loo dugal dina neex dina baax. waaw kañ kooku ñu gis mooy Serigne Moustapha imam mi ñu leen doon wax léegi mu doon jàmbaar. doon koo xamante ni muñkat la kooku nga gis sëriñ xaadim la tudd moo toog ci wetam noonu doom la ci moom di ko indil ziaram noonu waa nga gis ni moom yoonu murit nii rekk la baaxoo ñoom dañuy roy waaye lu baax mo donga mbereme to ne Moustapha mbereme to ne balañ koy xam keroog be sobi ma la xeya ala la la la la la la mo donga kay morom juma je mbereme to ne Moustapha mbereme to ne balañ koy xam keroog be sobi ma la xeya tee maa jóg way fi ngeen jëlin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo di tey ba mi desi di beñaat teeram waje foofu ndaw soxna jaara bu jiyeen kon mi neewi tey duñu beew waaye nga tee waaye nga te yaluma bi des yallal yalla yalla jox barke soxna jaay te ma jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommal boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara di tey ba mi desil beñaat teeram waje foofu ndaw soxna jaara bu di yen kon mi neewi tey duñu beew wayi nga te wayi nga te faral nga te foog nga yàlla na fi des yàlla yàlla yàlla jox barke soxna